salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara eh, di teew fii tey rek pour eh, becc kàddu yu néew eh, du yàgg ndax am na loo xam ne mu ngi nekk di wër xëy na ci réseaux sociaux yi partout dama ne woon terul tontu parce que yàgg nañ ko def c'est pas la première fois ñu ma koy def c'est pas la première fois ñu koy def président Sonko wala parti bi di Pastef waaye comme euh, yow la yow la fa mu yegg du man yeggu fa day baax ginnaaw ba bi ñu defee benn poste pour weddi tuuma ñu ñëw jàkkaarloog sénégalais yi wax ak ñoom ci lii nga xam ne moo xew parce que nag li tax ma def ko mooy dafa am ay nit ñu ma woo ñoo xam ne dañu bokk ci ay këru diine am cofeel lool si ñun samay mbokk tamit woo ma samay xarit moom ma sa xam yónnee nga ma di ma laaj waa lii nu mu demee comme nag dañoo jàkkaarloo ñoo xamante ni nii seen àdduna yëpp féeg la seen àdduna yépp tappale la mbuxum ak tooxidoona am nañ seen ay xarala loolu du sax samay wax ndax enquête bi génnoon ci société AMIS euh, leeral na ko wane na ne 2019 dañu utiliser woon ay faux compte ak ay pratique yu ñaaw a ñaaw ñaaw ci réseaux sociaux yi te su ngeen xoolee compte yooyu ñoo doon nekk ci réseaux sociaux yi di def ay photo Ousmane Sonko di saaga service di wax lu nekk ci turu Pastef ak Ousmane Sonko ngir jéem ñu jaxase kilifa diine waaye nuñ koy gën a defee rek nit ñi dañuy jox bopp rawatina kilifa diine yi ak këru diine yi xam nga nit koo xam ne saa su ne yaa ngi bëgg a xëy ne kii mook ñun képp a yem te yéen bugguleen yéen kilifa diine yi kilifa diine yi ne ñun ñoo ko bëggal suñu bopp fu mu dem ñu dalal ko tatagal ko jox ko kaamil jox ko xasida jox ko euh, bindu Seydi Hadji Malick bindu Baye fu mu dem may nañ ko ko da ngay jéem a xool ci ñi nga xam ne ñoo ko jege eh, yàgg nañu jot ay alerte yàgg nañu xam ni ñi jege président Ousmane Sonko fokk ñu faagaagal leen li ñuy wax esseler président Ousmane Sonko ba mu wéet ñu doo ko mën a song looloo tax génnewoon woon nañ fi benn fake news ñoom te ku bokk ci ñoom wax ma ko ku bokk jir wax ma ko ne fake news bi génnoo ñi doon wax naan Pastef mu ngi xalaat ci plan B entre El Malick Ndiaye Bassirou jomay Fadilou Keïta ñun la woon parce que dañ leen bëgg a féewale wallahi lazim loolu nag bettu ñu ñun xam nañ ko te yaakaar naa ne militants yi sympathisants yi sénégalais yi comprendre nañu ko ndax Pastef A ba Z ak bu beneen lettre amoon wala ci alphabet yi am ci langue monde bi yëpp benn plan lañu am muy présidence Sonko amul leneen amul keneen xalaatuñu keneen loolu pour mu leer ci bopp ñëpp ah, ñu walbatiku bi yoon yabalaat seen faux compte yi parce que saa yi ñu jaaxlee nag activé waat ko saa yu ñu posté ngeen gis ah El del delluwaat ci terrain bi waaw Basirou delluwaat ci terrain bi waaw waaw heureusement ba nit ñi patriote yi sympathisant yi fekk si wuñu leen ci parce que comprendre nañ xëy na dinañ yóbbaale quelques militants yoo xam ne dañoo xeer mën nañ bañ a settantal mais comme muusuñu même commentaires yi la ñuy am di copier coller dans tous nos posts Twitter comme Facebook ah li firndeel nag mooy dañoo jaxle amatuñu pexe moo tax ñuy wax ne El Malick wàcc na nangam ñun suñuy wàcc du réseaux sociaux yi moo koy commander Bassirou suy wàcc du réseaux sociaux yi moo koy commandé ku ci nekk la la président Ousmane Sonko sant ci combat bi yaa nga ca di ko def na mu war donc c'est pas ça le plus important mais dafa am loo xam ne dafa am solo ndax dañu génne benn poste jagleel ma ko maanaam defaraat comme nañ defaree woon euh, benn faux benn faux euh, post ci président Ousmane Sonko boo xam ne da doon wax lu ñaaw ci victoire gaynde yi defoon ko aussi président Ousmane Sonko ci wàllu këru diine yi defoon ko président Ousmane Sonko mooy bi ñuy partagé ñoom naan président Ousmane Sonko daa waxoon musu fa dem et cetera après mu supprimer ko yooyu lañuy defar loolu nag mën nañ ko mais ñun du ñu ñoom te duñu mas a doon moo tax bii yoon ñoom nag dañoo juum ndax xëy na vraiment mënoon nañ ko def keneen mu jàll ba mu des El Hadji Malick Ndiaye dëkk Daara Jolof juddoo fa màggee fa juddoo ci këru Tijaan mag ci këru Tijaan ñi xam Jolof xam nañ ne ñun ak waa Touba ak waa Tiwaawan rawatina côté maam Abdou ñoo bokk benn maam man ci famille boobu laa juddoo nekk Tijaan jugee ci aafe Jolof diggante aafe Jolof ngeet lumbal ñi xam Jolof xam ne ku mel ni Seydi Hadji Malick fa la jóge maam Abdou ñoom maam borom Touba Mbacke Bari ñëpp xam nañ ne benn famille bi la ndax man surtout daanu saane laa te ñu xam jolof xam nañ lan lay tekk loolu nag day firndeel ne xaw ma kan mooy ma sa xalab kilifa diine waaye du doon El Hadj ma judd nag ñu tuddee ma Seydi Hadj Malick ma doon taalibe cheikh xaqan ndax ku xas ba jël yëpp du doon nga taalibe cheikh xaqan sant naa yàlla nag ndax sama wayjur imaam la ijaazal nañ ko ba moom moo ma jox wér moo ma def li ma doon ginnaaw yàlla waaye ñëpp xam nañ ni ma mel ci sëriñ Babacar Sy xëy na nee nañ dama ko dondee ci kiñ ma naroon a tuddee kooku ne dama yéene woon turandoo sëriñ Babacar Sy aw ma ko sa papa bëgguma ma sa euh, euh, sam papa bi ko bi ma ko bëggee tuddee kooku daal di ne joxal leen ma tur bi Seydi Hadji Malick muy góor gi ñëpp xam ko xam nañ meloon Serigne Babacar Sy ñi ma xam tamit xam nañ ñu ma ci mel waaye ma dem def ku wax ngay xam ne mooy Serigne Mbaye Sy Abdou ñu koy wax Njool Fuuta man moom laa féete def ko sama wasila dem naa ko ci moom joxaat ko sama kurus mu ñaanalaat ma ci yeesalaat ma ma continuer sa loolu li tax ma koy wax mooy ñi ma xam ñëpp xam na ne man taalibe Cheikh la sect laa comme ni ñu koy waxee te dama ci fier te ñi demoon ci ziar général bi gis nañ ma ziar général bi weesu maa ngi woon ci podium bi alhamdulilah dend ak ñoom sëñ Ahmada ñoom sëñ Moustapha Sy ibnu euh, euh, Abdou Aziz Al Amin ñoom euh, kooku ñuy wax Cheikh Oumar Sy ibnu Seydi Jamil ak mboolem ñoom Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu Al Amin donc man xam nañ ma ci Tiwaawan ci Tiwaawan laay ndamoo taalibe Cheikh laay ndamoo waaye noonu laa amee wet ak cofeel ci mboolem kër diine yi fi nekk te loolu ñëpp xam nañ ko ci man donc Euh, loolu dafay baax ñu préciser ko baax ñu def ci live ñu dégg ma gis ma xam ne lu ñu mën a bind ci loolu bu ma toogoon man ma bindal ko sama bopp sax ñu xam ne du tayef ndax man dama fier ci lu ñu doon ñun ñu fier ci ma ciy waxtaanal président Ousmane Sonko saa su ne mu jàpp ne li ñu am mi ay kilifa diine chance la ngir Sénégal te ku jël réew mi bëgg ko defar boo associé kilifa diine yi incha allahu rabbi li nga bëgg di nga ko am looloo tax Ousmane Sonko mooy candidat benn candidat bi nga xam ne ci programme am daf ko bind mu leer man su yàlla defee ñu wóolu ma ba dénk ma dama fas yéenaa loolu ñuy wax culte ak religion dama ko fas naa dooleel moo xam ministère lay doon moo xam haute autorité te lépp lu ñu doxal ci réew mi dañ ci consulter ak lu mu mën di doon loolu nag yaakaar naa ne ku amul cofeel ci ci këru diine yi munu ko munu koo bind di ko defañ ci programme ànd nañ dem Touba ca jamono yu njëkkee ñu dalal ñu euh, ci résidence Xaadim Rasul radiallahu taala ci biir waxtaan bi mu jékki mu ne mais El Malick le modèle mouride est extraordinaire te soxlawuñu copier beneen modèle pour développer suñu réew parce que économie solidaire lañu soxla kon moom xam na bu baax a baax la mooy njëriñu këru diine yi mais nag boo jàkkaarloog ñoo xam ne seen àdduna yépp mooy fexe ba ni yéen waa Sénégal kii ngeen yaakaar ne moom la du moom ndax moom ñu ne yem képp ndax ñoom xam nañ ne ñoom moom la yàlla xam doy na mais dañu bëgg a wan Sénégalais yi nañ moom ñu ne yem mais mënuñu yem alaa kulli xaal duñu mës a ndax ba coow yu bëree ba léegi mosuñoo génn ñu ne ah Ousmane Sonko dañ ko jàpp ci dossier finance nangam randal nangam corruption nangam mukk dañuy xëy rek daa contre kilifa diine yi kilifa diine yi di ko gën a bëgg muy gañe këru kilifa diine yi nag macha allah ah ku gis li génn démb Tiwaawan gis li génn démb Mbàkke <laughs> nga xam ne këru diine yi am nañu cofeel gu mag sëkk ci président Ousmane Sonko ak ñi mu àndal waaye tamit dafa am loo xamante ne nii dafa am solo te ñu koy wax mooy réew mi fi mu yegg mu suñu woon a xalaat ne dina fi yegg te fii nag laay woowee kilifa diine yi lillahi wa rasuli nañu génn wax ak Macky Sall mu dellu si xelam parce que mu ngi dugal réew mi ci guuta boo xam ni kenn xamul fu mu jëm réew moo xam ne nervi dañ ko institutionnaliser sànq la kenn ku bokk ci ñoom prévenir ma ne ma waxal Ousseynou li ak yow ngeen def très attention parce que nee nañ foog ñu griller machine communication bu Pastef ma ne leen dañuy sonn rek ba ma yàlla di bind wax na kan moo may rey ak naka la may rey ak naka laay deewee sax bu dee donte bu dee nit bu ko def te loolu lu ñu gëm parce que ñun dañu tànn nekk doomu réew mi dañu tànn toog ci réew mi man ñi ma xam xam na ne su ma neexoon duma ma toog ci réew mi ci sama famille ba mu daj man rek maa des ci réew mi parce que dama tànn toog ci réew mi te dama wax sama waajur ñu war a soppi réew mi dama cee bokk ma choisir ko nag assumer ko mais ñi ma xam dëgg ak fa ma juddoo ak fa ma màggee ak fa ma jàngee ak samay xarit ak fa may liggéey xam nañu bu baax ni am naa possibilité dem fu nekk alhamdulilah mais nag dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo fas yéene delloo suñu réew ba mu jeex tàkk def nañu suñu vidéo testament yàgg na bés bu ci suñu bakkan dese suñuy doom bu ñu màggee duñu sëgg dinañ xam ne ay jamono seen wayjur bokkoon na ci génération bi jóg ngir soppi nekkunu askan wi ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci ngir soppi nekkinu askan wi ba ñi fi nekk toog ci kaw bopp askan wi di bundandaat benn famille yaakaar na ñoomoom réew mi di jaay doole di tëj di tijj di def lu leen neex brutalité bi nga xam ne ànd nañ di bu ñuy jàpp président Ousmane Sonko ak sànq bi ñu nekkee ñun ci biir tribunal bi li ma gis dama taxaw am na gendarme boo xam ne dañu taxaw ñu wax ma ne ko man xaw ma woon ne Sénégal yegg na ci degré manque d'humanisme d'humanité bu jegg fii nii mu suma xalaat ne yegg na fi mu ne ma ah doy na waar moom ma xam ne xolam jeex na munu munu ci dara mais loolu li muy wane ma gis ñi génne pompe di pompe garde corps euh, Barthélemy Diaz dañ ko pompe mais loolu xaaruñu ko ci benn benn benn benn benn takk der wax dëgg yàlla koo rey tamit jàppal di nga ko jaare ci nervi yi ñoom waxu waxuma seen wax c'est pas c'est le cadet de nous comme Macky Sall décidé na ne nervi yi moom dañoo légal institutionnel baax na nañ dem mais li am solo mooy ñun pare nañu ba ñuy wax la don de pour la patrie c'était pas un vain slogan lu ñu gëm la di ko dund amuñu ngàndaay amuñu lenn mais dañoo wóolu allahu mi ngi ci dañ ko wóolu nag te dénk ko suñu bopp ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi nekk fépp ci biir réew mi di ñu ñaanal guddeeg bëccëg foo génn di dox ñu dogaale ñaanal la bay jooy loolu li muy firndeel mooy yaakaar gi nga xam ne ah judd na ci Sénégal li may faral di wax sama yaay rek saa su nekk ma ne ko na seen xel dal nekku leen Sénégal mais na seen xel dal ndax bu yàlla nammee ne ñun ñooy soppi Sénégal ala kulli xaal ci sàll ak nguuram ak ku mu mën di àndal mu ngi ci lu toll ni tarfatal ay te loolu dañ ko gëm nag yaqin la lenn rek laa njort ne dina am te yéenewu ma ko mooy mu dem demin wu ñaawa ñaawa ñaaw mais billahi lazi day dem avant wala 2024 mais billahi lazi day dem ñu fekkee ñu bañ a fekk te bu moytuwul nag dem bu ñaaw lay doon bu delloosiwul xelam donc mbokk yi ci gàttal loolu laa doon wax di masawu mbooleem ñi nga xam ni tey gis na niñ ko def maa ngi jégalu parce que euh, batterie bi moo faible ndax suba ba léegi ñu ngi woon ci biti eh, di lu tamit ci image yi ndax xëy na dina am lu ci feeñ yoo xam ne warul feeñ mais bon du ñu professionnel wu live ak yu ni mel mais li am solo daal mooy gis nañ président Ousmane Sonko ñu li mu li ko dal tey eh, ñu bombe ko bomb ko def ko bomba gaz gazé ko brutaliser ko sotti eh, gaz boo xam ne ci yéreem ba léegi mu ngi tâche waaye li ñu ci war a def incha allah dinañ ko def parce que xamuñu ban substance la def ko ci bëtu Guy Marius Sagna ba mënul gis def ko ci bët ak gémmiñu Clédor Ciré Ly ba mu mënul gis président Ousmane Sonko jékki di si fakke ndax ñëpp xam nañ wetu wér-gu-yaram ci côté boobu moo euh, mook mën a yem nous des asthmatiques nëbbuñu ko fekkente ne foofu lañ bëgg a jaar ñu faagaagal ñu nañ fa jaar amul benn problème mais asthmatique nga gaase ko ñu defal ko oxygène pour sauver ko pour euh, delloo siwaat ko mu ànd ak sagoom médecin bi bind mu leer noir sur blanc ne nañ ko dugal ci ambulance bi yóbbu ko direct suma ngir defal ko traitement parce que am na médecin bu koy suivre ñu ne ala kulli xaal du ci am brutaliser ko dugalaat ko ci seen oto yóbbu ko biir euh, euh, euh, yóbbu ko ba këram barricade waat ko ne ko doo génn doo dem faju ji lépp lu ko mën a dal nag responsabilité principale bi Macky la maa ngi leen di sant di gërëm di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla ñii ñu jiite ci terreur yàlla delloo si seen xel ba ñu xam ne réewum Sénégal jàmm moo ci xaj eh, di ñaan yàlla rek eh, kàddu gi lépp loo xam ne ñagas na ci wala jaar yoon ñu jéggal ñu ko rek te xam ni xëy na journée moo xawoon a gudd te metti ak coono beeg yooyu waaye incha allah dinañ ñëw ak yéen ci yeneen waxtaan jërë ngeen